chers internautes yi dal leen jàmm ci xabaar bi nga xam ne kon moom mooy doog a yegsi soxal ab découverte macabre bi nga xamante ni kon sapeur pompier yu Kaolack daal di nañu koy amal ni ki tey jii kon mu di néewu xale bi nga xam ne kon ay atam mi ngi toll ci fukk ak juróom-benn nekkoon élève di wuyoo ci turu Pape Alioune Ndiaye moom nag depuis ay fanaa ngi nii kon seen waa kër di ko seet mënuñu ko teg bët lu mat sax ñetti fanaa ngi ni kon ñu daal di koy wër waaye ndeke moom jamono boobee kon dafa lab kon ci biiru géej bu Kaolack fi xam ne kon moom moo toll fa ñuy wax kundam foofe kon la lap ñàkk fa bakkanam tey nag ci suba ji yemook àllarba fukki fan ak benn ci weeru janvier 2023 ci la ko ñi nga xamante ni ñoo comme ñooy sapeur pompier yi daal di gis ab néewam moom xale bi nga xamante ni kon mu ngi wuyoo ci turu Papa Alioune Ndiaye ay atam toll ci 16 ans na ñu ab élève la woon nekkoon ci benn école fii ci biir diwaanu Kaolack doon fa jànge waaye nag tey jii kon dafa mujjee ñàkk bakkanam gannaaw bu ñu ko wëree ay fan ngi ni fekk boobe kon mu lab ci géeju Kaolack gi toll fi nga xam ne fa la ñuy wax kundam